asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum yéen ñi suivre Zambro euh, tey nag ñu ngi Palmarin Ngallou Palmarin Ngallou nag boo leen ko waxee dëkku champion la pas mal champion yoo xam ne ñoo ngi fii nii comme ay ñoom Alizé ñoom Babacar Ndiig ñoom Fodé Ndissine ñoom Jama ak yeneen i yeneen mais tey nag euh, champion bu mag ki di naan Mbaye Diop moom lañ session Mbaye Diop nuyu naa la. waaw siyaar naa la Zambro. leen nuyoo ba pare euh, kan mooy mbay Diop. Mbaye Diop mooy benn boy bu dëkk Palmarin rek mhm. waaw yaroo Palmarin jàng fi jàng fi lu bari na. Mhm. mais Mbaye Diop yow kan nga commencé bëgg ak lu la dugal ci làmb. man dama amul làmb depuis bu ma nekkee booy mhm. bu ma nekkee xale te tamit làmb daa nekk sama deret parce que samay papa dañoo bëri waaw samay nijaay yi. moo commencé bëree. daanaka yàgg na yàggul. ban année la. mais bi ma amee licence daal bi ma amee licence. Hmm. daaw jéeg la mooy làmbu per amul. Hmm. bi may jël. waaw laa njëkk yor sama licence jour la sama licence ñëw jour boobu laa ci bëre hmm. jour boobu laa jël làmbu daaw jéeg ci laa am licence daal. mais yow daanoo ñu bëri ay mbapat wala. waaw ah, daan naa di bëri ay mbapat. di bëri naa fi mbapat ay mbapat yu bëri sax. waaw daan ànd sama boy ñoom Aliou daan naa di bëri ay mbapat yu bëri. yow kañ nga commencé di bañ mbapat man daal dama xàmmee rek commencé di bëri ma xàmmee rek commencé di bëri loolu ban année la ay 2016 yooyu daal maa ngi doon 2016 2017 nag ci commencé di bëri mbapat dëgg bëri mbapat dëgg foo foo njëkk a takkee ngeen ma njëkk a ngeen palmarin la palmarin palmarin ban mooy sa premier final. ma premier final mu ngi nekkoon fii Loul Sessène. Loul Sessène loolu ban année la. Loul Sessène deux deux mille dix-sept bi ci laa final Loul Sessène. Loul Sessène. Mm. benn mbapat mm. ngi seeg Birama. ci poids lourd moom mooy final ci léger bi. Mm. instant boobu yaa ngi jàng wala. waaw ah, instant boobu maa ci école bi. maa ngi ci école bi. mais Mbaye eh, Diop yow ban moment nga sentir ne yow bi ah man moom wax dëgg bi ma commencé bëre rek. Mhm. dama gëm ne man mhm. incha allah dama war a doon mbër mhm. parce que làmb dafa nekk ci man comme ni ma la ko waxee sànq làmb dafa nekk ci man amour la ci man amour dama ko bëgg moo tax koy tarbiwu comme ni ko di wax dara boo ko bëggee nga tarbiwu ko. moo tax daf may jaral lu bari daf may jaral lu bari. Mbaye yow kan mooy sa idole ci làmb ji. ama idole ci waaw parce que moo def ci man lu bari daal. moo def ci man lu bari. dama daan tudd ba ay guddi mu yee ma di ma entraîné loo côté jumaa ji foofu seen côté ko di ma kontaan loolu di ma jàngal li ma jàngal lu bari daal. ba pare jël lu bari daal jox ma waaw béjjën bi may yor daanaka saag bi ma yor sax mën naa ne Moussa moom moo ko jox moom moo ko jox instant bi yow ban ban catégorie nga bëgg instant bi man maa raw gàddu waaye man dama ne hmm. laa ma ji fi mu toll nii hmm. boo nee damay fixé benn poids bi foog ngay dem ci mag ñi. di balance foog ngay balance waaw dem ci mag ñi di bëri. man bi may bëre poussière daaw jéeg ci laa finaalu tànk ci laa finaalu tànk fële Diop yor. Diop yor mhm. yaa ngi Babou Sarr wala. waaw maa Babou Sarr. Mhm. mais ñaata dagapo nga am comme par exemple da gis mbëgg des fois comme par saison mhm. saison bi mën nga am dix dagapo xam nga saison prochaine nga am quinze xam nga am par saison. man bi ma bi ma commencé ak léegi mun mm-hmm. maa wax ñaata daraa laa am par saison. Mm-hmm. lu tax naa doo compter. non moom du may compter drapeau. waaw ah. mm-hmm. moom may ñëw. su ma jëlee fii waaw leneen leneen laay xoolaat boobu dama dama koy bàyyi sama ginnaaw maa ngi si leneen. mooy lijjantiwaat leneen. li nekk ci kanam waaw li nekk ci kanam rek. mais si saison yi nga jot a def ban saison moo gën a nii saison yi. bon saison ren bi moom sant yàlla sant yàlla saison daaw tamit alhamdulilah mais saison ren bi moom ñu ngi euh, gis keroog euh, mbapat bu amoon palmarin ngal xam nga yaa am aseef ñu tëb wante lu mu demee loolu. non làmb rek làmb daa am muy toll moom mm-hmm. deret ji mooy tàng ba kenn dootul mooy téye sa daal. man moom wax dëgg su ko la waxul sax sama grand yi xam nañu ko man làmb day am fii su ma bëriwul du parce que mënu maa seetaan làmb man lee mënu maa seetaan làmb damaa sot ci làmb te way daa am fi may toll foo xam ne moo mën a téye sama bopp waaw may dem dem mais ba ko sa ak la nga dama digganteeg amul dara. digganteeg amul dara ay adversaire lañ rek. Eh, adversaire lañ est que mos ngeen bëgg. bëgg nañ benn yoon. nu mu demee ren daan na fi final. Hmm, eh, Simal. ah Simal. daan ah, ma foofu final. Hmm. ay hmm, eh, adversaire ngeen daal. waaw ay adversaire waaw bu ñu jógee ci Abou Assef ñu dañuy daal dem ci Mbinjool Mbinjool bu Joal. te mu mën ko bëgg a bëgg a seetaan nañ ko yi gis nañu ko demee yaa Mbinjool. lan la mbay est-ce que mën nga leeral gars yi nu mu demee. non comme ni ma lay rek. man ma nekkee ci làmb moom. yow miy nekk ci biir sax am xam xam nga ni may mel. bu ma nekkee ci làmb bu may dox fii. ça veut dire parce bu ma nekkee ci làmb moom keneen laay doon. loolu ma xam sax lu bari bari. billaay mais sa diggante bi ñu koy bari parce que mosul bëri. waaw ñaar yoon. Hmm. <laughs> bëri nañ ñaar yoon sax. Hmm. fii Fimela bu nekkee ci internet bi ci seen bopp parce que boobu jàpp ne mbër bu mbër bu ndaw rek mais moom lañ joxoon victoire waaw du ma am lu bëri lu ma ciy wax gars yi jox ko foofu victoire lamb ji amoon na coow sax après ma ne sama gars yi loolu jaru ko nañ dem xam nga moom lañ jox victoire nañ génn dem après ñu génn dem waaw ak yang ma àndal booy mu ne leen ah man dinaa fayu moom comme que affaire yi demee man moom damaa gëm ne boo ma daanee ñaar damaa gëm ne buñ desewaatee damay fayu après yaa def 900 mille may final joal ñu tane foofu quart de final quart de final ma apa? ko foofu ma daan ko eh, muy waaw muy à part Abou Assef ak Ndoye yan ba nga xam ne maanaam tey Mbaye bu leen gisee ci géew du leen may dara da ngeen di bëgg di tëggante yooyu noonu. man mbër yëpp du ma leen may dara. Mhm. mbër yëpp du ma leen may dara. Mhm. man amul Abou Azef amul Mindior. Mhm. man du may kenn dara. su ma xasee ba takk sama ngemb. ba jóge fii ba tàggu sama ganaay tàggu sama mère. ah dootuma may dara dama gëm ne damay ñëw li fi nekk daal laa bëgg a indi fii. li fi nekk laa bëgg a indi ci gàlle bi. waaw yow Mbaye nga nekk jeune ju dëkk fii Palmarin Gallo ak Palmarin Euh, loolu noo koy dundee est-ce que yéen ci yéen seen biir am nañu complicité boobu wala comme maanaam da nga contact euh, ci même yéen ay bokk contact quoi wala. man moom ñëpp laay contact mm-hmm. man dafa am benn ambition mu am ci man. man su may su ma nekkee ci làmb tey. Mm-hmm. su may damay entraîner fii damay entraîner fii. parce mm-hmm. que mbay de may mayanteeg gars yi. non waxtu bi damay mayanteeg gars yëpp. waxtu bi damay mayanteeg gars yi. parce que man su may entraîner fii ba xam ne. espoir bi fii xaw na gars yi commencé nañ di nekk ci beneen liggéey. waaw mm-hmm. damay xool fii gars yi bu fekkee ñu ngi entraîné ma dawaat fii entraîné mm-hmm. parce que man bi bi may jàng sax bi may jàng sax mm-hmm. boobu sama sama grand yi xam nga nit moom bay bëgg lu baax ci yow sama grand dañ ma wax mbay da ngay entraîné rek te bu ñu waxee jàngi da ngay biddanti maa ngi leen non dinaa jàngi dinaa jàngi dinaa jàng xam nga boobu amul làmb moom laa am te làmb moom dañ ne boo ko bëggee da nga koy tarbi. yow ban classe nga bàyyi jàng wala yaa ngi si école <laughs> naa. ban classe euh, la. Hmm. waaw ba nga bi nga hmm. xam nga boo nekkee jeune. Hmm. am foo toll tamit. am foo toll. so vision daal ku nekk ak vision am na loo xam ne boo gisee ne mën na la tàggal ci yenn côté rek waaw man tam dama ne jàng moom xam-xam ci war a wut xam-xam bi mu war a ci ci ci ah, ne am naa ci tuuti de. am naa tuuti am naa ci tuuti. loolu tax nga bàyyi ko. waaw loolu tax nga bàyyi ko ci ci bëri bi. waaw maa ngi ci làmb bi. Hmm. waaw man ñu gis euh, saison passée bi euh, Dakar may may may jóg yëngal ko. Adrien Senghor tey ngeen gàllankoor. Mbaye est-ce que mën nañ ñëw ci mu demee. waaw saison daaw bi li tax na yeggal ko. Mhm. loolu lépp ci yàlla la. waaw avant ñu ñëw sa yaa ngi seen doole ko daanee. waaw usine waaw sama gànnaaw maa ngi koy nuyoo passage tamit mhm. ah dañoo bëre mhm. ñoo àndoon <laughs> jéem. waaw yéen a ma taseeg usine doon demi final. waaw Adrien Senghor saa ay si. li ma mbay yaa pisin la de mu man làmb ji moom su ma si nekkee moom day day tàng du ma yaa usine la rek man maa ngi naan maa ngi naan sama xel saa yi xam ne xam naa daa foog ne man mënumaa daan usine ma ne ko jees ma ne ko jees xam nga jees laa bëgg ma ne ko mu ne ma ko dama ko daan mu ne ko dama toog boobu lu bari parce que man su ma tasee ak nit sama mbër daw si ne ma sama waay daw si ne ma ndax yaa ko waaj naan rek dama naan kii day gëm ne mënumaa daan waaye bi ma ko daanee gis nga ni mu def si làmb ji. waaw bi mu ko daanee public bi yëpp instant boobu mbay lan nga sentir. non damaa gëm ne loolu lu mën a am la rek. bu mm-hmm. question may sentir dara parce que damaa gëm ne mën naa ko daan. te c'est la première fois nga ñëw adressé seen bopp. waaw c'était la première fois nga ñëw adressé seen nga ñëw final. waaw dëgg la jaaxal gars yi <laughs> leen sax. Mm.

mu jël ko combat Mbaye ma tudd Mbaye Diop <coughs> loolu lu ko waral Mbaye. Oh, loolu comme ni ko gars yi kii di waxee rek. Mm. physique bu metti rek gaa yi nëmbar warut a physique. Mm. damay physique damay góorlu. Mm. damay daw lu bari. damay daw lu bari soo ko saal. boo gisee ma jugee fii daw Dakar. du question pour fii ba amul entraîné mais xam nga fii da dama dama miin gars yi ba ñu ëpp. man tey su ma ba ñëw. mun naa reer toog mm-hmm. gars yi ñëw néeg ba mm-hmm. bu ñëwee néeg du mën fa du mën fa mën a bàyyi moo tax mm-hmm. waaw foog nga ngoonal ak ñoom te xam nga nit moom am na fooy toll ci làmb boo boo nee damay noppalu rek parce que ñëpp yemuñu xalaat ñii mën nañ ne dafa yéegal boppam ci kaw moo tax ma obligé di sacrifié wu xam nga neex na trop di sacrifié wu dem Dakar su ma entraîné ñëw tëdd noppalu après di woo gars yi di déggante ñoom waa euh, bu ñu jógee foofu tamit Mbaye Diop ñëwaat euh, terrain Gambie euh, daanu foofu demi-finale demi-finale la daal la. waaw demi-finale sax Ngor ñaa yaa ko génnee. est-ce ñëw ci combat bi sa diggante ak Ngor ñaa. parce ba ngeen lu yàgg à peu près nga gagné ko par avertissement. waaw laa mujj nekkoon nga wa. waaw nekkoon naa foofu waaw damaa damaa bëgg nga leeral gars yaa doon bëggee le terrain. Mm-hmm. waaw nga ah gars yi bi ma bi ma dara yu bëri amuñu woon yaakaar ci man de mm-hmm. waaw ñu bëri amuñu woon yaakaar ci man man bi ñuy bindu sax sama boy ordi ñëwul ñëwul sama boy ah, ordi waaw moom bom bom bom boy bu ñu yóbbu laa waaw xam mm-hmm. na boobu ne ma kii ñëw na ñu mm-hmm. tudd sax ngóor ngóor ne ma ngóor ñëw na mu wax mu ne ko waaw mu jékki na ma ne ko wax nga ma ko sànq du ma ko waxaat. Hmm. boobu ay quatre heures a ngi jot. Hmm. laajal jéen jéen nekkoon hmm. na ma foofu. ma jékki rek jël bagage yi commencé di takk ñu ne ma heure bi jotagul. boobu nekk sama xol bi maa ko xam. xam nga man mbër bu ñëwee boo ko defee favori rek. làmb daal dama ci yomb gis sama bopp boobu. ma commencé takk di takk. daa mujj ñu dugg ci laa bokk. ñu njëkk dugg ci laa bokk yaa def ñu tase deuxième tour. deuxième tour est-ce que làmb boobu nekk nga parce que sa combat yëpp dañoo métti. <laughs> ah non yenn saa yi nga ñëw yenn saa yi nga ñëw combat yi métti. man làmb ju ma dugg damay nekk. mosuma dugg laa ba ba ba ne tey hu tey nekkuma. mais les meilleurs jours boobu noonu sa combat yëpp dañoo yàgg mbay. waaw ah, gars yi champion lañ. Hmm. gars yi champion lañ. mais d'habitude yow sa combat bi yàgg dafa demee noonu.

jour boobu maa ngi woon foofu mais gis ma combat bi. parce que tellement a gaaw nga xam ne mooy loolu est ce que mbay mën na ñëw ci combat boobu expliqué mu ko daanee. dëgg na de. Hmm. saa <laughs> ah. yi xam nga bu bëri moom ak jàngat ñoo ànd. Hmm. jàngat ko. Hmm. xool ni ñu bëree. saa yi daa mën a tànk. boo gisee nga xam ne daa mën a tànk. ma xam ne kii. comme nit boo mënee dara man su ma mënee dara hmm. moom laa lay njëkk a tegal hmm. ma ne kii dina ma tegal tànk bi waaw hmm. ah, moo tax gars yi bi ñuy bi ñuy jox ñu wax noonu li may ree yëpp loolu boo nekk tam boobu boobu may jàng li may li ma war a bëreeg moom man tamit champion la billaahi may ñëw daaw yëngal Dakar <laughs> gars yi di wax booy bu tudd booy est-ce que may mën na ñëwaat ci loolu waaw loolu gëm-gëm la rek mhm. làmb dama ne soo ko tarbiyoo mhm. soo bari waaw damay tëdd guddi damay damay tëdd guddi kon su ma nit daane damay tëdd ba di jóg di entraîné di entraîné naa fi ay quatre heures quatre heures du matin quatre heures du matin entraîné naa trois heures du damay entraîné na ma ay ñuy contact ba ay 5 heures 2 heures ba 5 heures ñaari contact ñaari ñoom ñu nekk ñuy contact ba ay 5 heures waaw gis nga làmb daal dama ko tarbiyu dama koy tarbiyu du ma ne dama ko tarbiyu mel ni ku ciy génn mais dama koy tarbiyu laa est-ce que mbay moo ci écrit waaw maa ngi ci écrit ban écrit nga nekk maa ngi écrit Falaay écrit Falaay waaw est-ce que mbay mos na am combat boobu nga am combat ren. Hmm. ren laay soog a dugg ci écurie. ren waaw. mais est-ce que gars yi ñu wutal combat. waaw gars yi wutal combat. Hmm. waaw may nuyuwaale sama gars foofu. Hmm. ñoom Grand ñoom Gilles Balde. nuyu gars ñoom Jacob. Jacob amoon na combat temps daal na. est-ce que est-ce que Mbaye am na jàppale. non làmb moom. am naa jàppale moom parce que jàppale boo koy wax gars yi ñu bëri dañ naan jàppale basé wu ko ci xaalis man am naa jàppale xam nga la moo tax ma ne am naa jàppale sama grand yaa ngi fi fii kenn amul lu bari mais tey su ma tàggoo dërëm bu la ñu jox ñaan bu la ñu jox loolu jàppale la am naa jàppale de wax dëgg parce que grand yu bëri dañ may defal waaw te du ma laaj ñoom grand Paysa ñoom grand Samba Siga grand Alizé mm-hmm. waaw grand bi Assane ñoom mm-hmm. Cheikh ñoom mm-hmm. Arfan gis nga waaw gars yi ah man moom wax alhamdulilah waaw ah, ñoom Lamine ñoom ñëpp waaye may jàppale euh, mais ñu gis ne Mbaye Diop ren dana volume jël doom lu waxal loolu waaw ah, gis nga loolu <laughs> damay laajte damay laajte bëgg a xam bu jëlee doom bu jëlee donc ñu ko xam. ndax el gars yi ma àndal Dakar. damay hmm. àndal xam nga kan Dakar suuf si nu mu mel. damay takk saabu. waaw saabu saabu. def si suuf. daw ak moom. ki nga nit. loo bëgg hmm. rek chaque at yaa day def ngay gën a nit ñi mënuñoo bañ a wax. nit ñi bu waxatul rek parce que nekkatoo li nga doon. fekk defatoo dara waaw dafa fekk defatoo dara mais booy def. nit ñi dañuy wax. Mm-hmm. mais damay ñaan nit ñi di gën a wax rek. Mm-hmm. mais bu ma gis moom xam ne ay mm-hmm. ay doom yi. Ah, loolu leer na. leeral nañ. waa euh, ñu gis ne saison ren bi euh, ay changement am nañu ci wàllum CNG maanaam euh, poids poids yi daan am Dakar. xam nga 86 kilos lañ daan ñëw mais instant bii nii loolu amatul. boo bëggee bind tànk nga bind tànk boo bëggee bind poids nga bind poids te yow Mbaye Diop euh, euh, boobu noonu boobu noonu lan la mën a mën a wax ci loi boobu. dama jàng alhamdulilah rek. Mhm. que am bi may dem. Mhm. boobu reeruma ci guddi mhm. xëy ndékkuma añuma. Lamine naan ma ndax oh maa ngi maa ngi pesé quatre vingt quatre vingt nga a waaye yow Lamine ne ma doo daa doo lekk ma ne ko non non. après mu ree xam nga moom saa yi ma waxee rek mu ne ma yow da ngaa da ngaa tiit da yàgg a tiit. ma ne ko mu ne ko daal xaaral ma su ma peesoo ba pare ma ma soog a rek. Mm-hmm. affaire yi mooy gën a neex wala. yaa ngi day gën a neex. Mm-hmm. day gën a man làmb bu diisul sax. Mm-hmm. du si yàgg sama bopp. est-ce que loi boobu dina engagé mbëri parce que peut-être di nga gis ay mbër yoo xam ne ay poids lourds lañu mais duñu bëri poids lourds dañuy benn su tànk yi ci booy yi est-ce que loi boobu mbay est-ce que analyser naa ci kay. Hmm. parce que ku nekk ak sa amam rek. Hmm. parce que man dama ñu war a bindu poids bu ñëwee bindu tànk. Hmm. booy yi bu jël dañ koy jël. gaa yi gëm parce que man la am am bi koy jël. comme ni nga ko boobu. boobu kenn foogul woon naa jël làmb ji hmm. boobu kenn foogul woon naa jël làmb ji. Hmm. waaw Mbaye euh, ñu dégg ne euh, dégg ñu sax man mais mais gars ñoo wax hmm. lu tax mbay Diop convoqué wu ñu euh, ci drapeau chef rek. gars nekk sa sens. bu ñu sa sens rek. non man de. gars yi non bu ma woowee rek incha allah. ma ne gars woo nañ ñëw la woo la parce que gars yi naan Mbaye Diop daa war a dem CEDEAO wai wai da mai na dab mai ga kan wo no parce que dañ dafa am gaay mo won chef de l'état waaw man pareegu ma ci affaire yooyu ban région Kaffrine waroon naa fa dem mais mais danga pour chef de l'état ak CEDEAO bokkul bu dee CEDEAO Sénégal ngay représenté mais représenté Sénégal ci nga pare mais soo parewul dem représenté Sénégal mais tey su ma amee gàllankoor foofu waa Sénégal duñu ma jàppale de. mais xam ne boo demee drapeau chef d'État wala boo ko defee day loolu day marqué sa sa carrière est-ce que Mbaye xam na loolu. yàgg yàgg da ciy marqué. Hmm. bu ñu yàlla mayee kàttan ak wér. Hmm. yàgg yàgg loolu dama ko gëm. Hmm. yàgg yàgg da ma marqué. incha allah yàkkamti mu dara. mais gars yi wàllu kenn woowu la. <laughs> kenn woowu léegi lan mooy sa dernier mot ñu bàyyi la nga gërëm gars yi xam nga sa supporter yi mu ñu waajalee seen wàllu gars yi fan si club yi yëpp ñu gërëm leen. waaw fan si club yëpp maa ngi leen di ziar. Mhm. di ziar gars yëpp. Mhm. waaw yow Sadio Baye Zane. Baye Zane waaw sama watkat bi. <laughs> waaw waaw ñu ma taf si boppam. Mhm. <laughs> ñun dañuy jéem sama grand yi. grand Assane. sama mag waaw. sama grand bi moom kenn dootu ko présenté ci lamb ki moy kan kii mooy Étienne kan? <laughs> grand Étienne kenn dootu ko présenté ci lamb ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko Étienne Valdo moom boo ko waxee ñoom grand waaw ah, kii mooy Étienne Valdo waaw ye dañ ko jox mi xom sax ñu sànni quelque temps ci ci champion bi waaw grand la bi ñu ha gaay yi cher وادي فال إليمان ساي ما نيو يوبر ما بني واو يوم إلك وادي ما يوم يوم جران بلان بلان loolu la ko demee. não não não ma su ma si gënee não su ma si gënee nekk. benn boor não tax. Aliou. Aliou Aliou Koungheul. su ma não a nekk booy xoolal. dama am bëre. não saa waay du am jàmm bi laaxi. não maa ngi Aliou ak ordi moom dem na géej. dem na géej moom xab yi sama gars yi. la fan si moom sax ni maa leen di siyaar. waaw. <laughs> ñoom Lamine grand Lamine gars yi nekk Pikine. Mhm. Mhm. ak ma benn grand. Euh, grand as. grand as mm-hmm. waa am jom waa am jom ñu nekk Géraw. Mm-hmm. gaa yëpp ñoom Pape Babou. Mm-hmm. gaa yëpp daal maa ngi siyaar. ñi may jàppale ñëpp su ma limee damay tuub ñëpp ñëpp ñëpp. baax waaw so i tu ñoom alisé ingalna sege ha leyga ɓe sarede palmare ɓe anndo ka mbay job aretana ake ciñof quoi stange ga mbay job ande ande o pañum ande o pañum wawmo lay parce que juwalameke mm-hmm. i jomni galaga manan tan ma pat fe gala mm-hmm. ko fuɗoto foppo joɗin fofo mbuɗoɗo ndeftiñof a ah, pan waray moom jammino tamtel mm-hmm. maire ke fop wawamu lay goor ma koy maire amine maire amine ɗum fop billahi maire mbatin mba jogo quartier fe sax ka yunga sate fe wawamu lay samzambo asezeni fof kañum wona wiinoyo quoi eh, wonuma ni ngal ngeej mm-hmm. bo betenti e betenti tamit mais siare ago ya ana koye foode en mm-hmm. ñom foode waaw maa ngi siyaar gaa yëpp gaa yëpp eh, kon gënu ki ala hande champion ma fe de lamba job ande ram tamit nana gonum parce que fon waka be fe falam ayun dakar de ni du hay ala ike chudanu ngande bu semaine wala kas fa invité wala kas to la nu ne banu me abonné Euh, la chaîne wi innona Zambo TV gidma fof e katpanmahenɓe fof hakkunangal boji feere jahano gueji gurmanɓe gueɗuma fa wona suiva Zambo TV na dans les sociaux fof ɓe geyamon jajef waaw mi tamit journaliste ni golle ko ko can balɗo guina mm, ren mbina interview ko champion ɓe gueɗe lambaji yo palmaret ha mbay lu di wax rek ak gonte ba nu mu waanu lay wax rek mais danan te avancer ni jom to dia avenir ni jom parce que jom laaj na o hefiyan yam jom abu way yar abu itam e o sa entraînement to biyame asada ken to itam respecter a fo palmarin e o giyanga mitam gar bo tewit wade ka defare boy fa ano e respecter am to a to tam giam avenir roten ten mhm. yam andam ya gimay houm parce que jom itam ino ke biara ko jom e ke mi na jom ja foppa mhm. adam to mhm. nga ken an ka hoyke me biara jom awaha o passé ni ken atek yange wara maro gar tew tew eh, pour itam wanu mojo sat kan kete biya te mojo sat akino ten wa ndiga o janga ka conseil kan wono ka conseil kan miɗe ah. ko conseil am mm-hmm. te refu o jof mm-hmm. fa itam o respectey adversaire ko mm-hmm. to respecte entraînement ko jaɓo won waaw heure ñaama bo giñ e o fiyanga ken rek o respecté wine rek ano o wanni ke joga aca kon jaajo Alika Dios. Dios. Justin Dios. Ah, ok. waaw gina yéen dina interview ba champion nga ngeen laa mbay. merci awo c'est ten. merci que wawma seedeeno ten te refu ke takor a salayna fi mhm. aussi petit ke mhm. parce que bon in fop no na quartier vert. Mhm. danaka bon vraiment a cooɗa in discipline to ken a surtout que manam na côté fana i a num tan to vraiment a lalayno jofole wena mais quand tu es dans le terrain wena il faut

ken refu callel ke ndine ha conseil ka mbañ ɗo bon koye conseil kam ten refu manam o jafole dal damte so ɗakinori ten ro aussi a damta in in fop maintenant i ñananan dal iwe nacino mm-hmm. i parce que bon o ndeb ndego o jofanga dal jeya mayu tokof mm-hmm. i euh, lakas conseil ka tan aussi ten mm-hmm. moyto te ref ke Etienne Valdo layna parce que ancien to xeƴa bon ancien couloir ken am ñani jom to ànd ak kër may njom mm-hmm. te tey la woon door mm-hmm. récupérer waaw maa ngi lay fay mm-hmm. waaw Samba kii moom xam sama kii la waaw sama watkat la sama waaw moom mooy defar waaw ginnaaw bu ñu defee interview ak Mbaye a def ci moom waaw bi nii di leen sant yéen ñëpp waaw di sant sama gars yi bi teew yëpp maa ngi leen sant di sant mbër bi waaw day def di wax si moom man moom li te euh, am na am na yar daal. Mhm. waaw àdduna nag lépp loo am moom. Mhm. soo amul doomu aadama yi rek amoo dara te moom am na nit ñi. Mhm. boo amee nit ñi rek presque sa lépp sa àdduna moom mu nga jàpp na day baax. waaw li may ki mu koy conseillé nag moom mooy. na gëm li muy def. te comme li comme bi fi toogoon wax léegi mu bañ a changé quoi. waaw tamit xalaat tamit àdduna bu demee ba changé. moom nay xalaat nit yi dem ba mu quoi. waaw parce que. alal moom bu bu lu ko yàlla denkee xëy na nag amaguñ dara maye mm. ñoo ngi koy ñaanal mu am ko mm. mais alal bu lu ko yàlla mayee mm. déjà euh, day changer lu bari mën na la changer fàttaloo la sa nit yi démb comme boo fàttalikoo sa nit yi rek yàlla mën na man nag moom bi ma ko bi ma koy supporté xëy na dama koy supporté te yëgogu ko parce que man gis naa salon bi euh, ay photo nga fa taf waaw man ba ma koy supporté boobu yëgul ne maa koy supporté te boobu xëy yàlla

waaw Baye Fall waaye sama doom li la. Mhm. ñoo yar woon mhm. ba bi muy final Dakar première final ma train simple. Mhm. maa ko yóbboo. mais lenn laa mën a moom. booy bi daa am sañ-sañ. am fit am fulla am fayda. ba bi muy daan usine. jour boobu confirmé na ko. parce que bi ñu leen woowee moom ak usine. demi final. usine moom ku ko dégg xam na turam. waaw bi ñu ko woowee maa daw si ne ko Baye Fall usine nga am. mun ma jéem a demal toog. waat ci yàlla da koy daal ma ne ko lan mun a barke Serigne Touba dama koy daal ci laa dem toog te ni ñu ko waxee noonu la ko defee kon ku def loolu nga xam ne boobu am na sañ-sañ am na fit am na ful am na fayda léegi yow loo koy conseillé bàyyi baat daal leen laa koy conseillé mm-hmm. mu bañ a changé ni mu mel mm-hmm. mu continuer ko mm-hmm. waaw jaajëf ok mo dal geyalo yete wonno arok école arok école mo yete aji hiiɗa dow ɗon tena arok jom aussi nga jinni ken dal parce que aussi ande a waɗi bunu hatale jangi jangi jangi mhm. layti mhm. mhm. nga jananga te jag show i sike dal adna nenode defa nga ten e janga soire haƴite rek bo wa ndig ne instant ke mbay a doga fiya kem danni ne instant ko janga ka conseil wona a ref ka conseil kan te ref ke tokor feyne ka layna o jof Mm-hmm. yar mm-hmm. parce que tamit ken o jiyangan ma nu refoona rek xano mm-hmm. jeg teen ndam i njom ref ka ando a ɗoma ɗom i sasananga bafta saate gara saate watnel mana na ñaxa fil si meen koy e, ke na warin kam ten te refo jof fa yar i aussi a yoon fele parce que wena yoona fo ten den mbawno ndamit te refuna nam jomum mm. mm. mm. ya ma yake wala hanche o ten bay ten waru waro gara si ne jege problem nda o ngey ni jom nga giya mbira yonit mbira jewata yonita a hancel wana kit gafi jom ne anda yar refatema to sport mom haɗuma ya rote anda ka huppom ten sans. yimi dal ken ka conscient i parce ken na champion weɗella bafo gatam e mo seege fiñjom mo seedirore jom o hancaga jom aussi te ɓof kete jeena a mm-hmm. xaat mm-hmm. mi dal ken conseil an quoi i tamit roxa damtin mm-hmm. mete buna fan ñow feɗam wa ɓisin mana kino yaru merci ngidmam teleg la mbay foko ko lum mënti ci affaire u jàmm moom dalay fekk si kon instant bi yow lan nga koy conseillé. mbay moom li ma koy conseil leen la. Hmm. parce que comme li gars yi wax. Hmm. Euh, sport discipline d' abord. Hmm. ak àdduna loo ciy def. da ngay ànd ak discipline. waaw ndax euh, nee nañ soo amee discipline rek. mën naa ne am na ñëpp te nit ñi xam kenn jëndu leen. yar rek ak teggin nga leen mën a wan soo leen ko wanee rek lépp loo bëgg rek ñoom dañ la ciy jàppale. maa ngi koy conseillé. baax a baax a baax. gën a yokk liggéey bi. gën a góorgóorlu. xam ne fii waa koñ bi waa dëkk bi ñëpp dañ koy supporter mm. te nit ki sooy bëree mm. e, del xool ñi nga xamante ne ñoo nekk sa ginnaaw mm. waa ngay def lu rafet ba nga xamante ne parce que benn grand mos na ma ko wax e, nee na ma sooy def benn affaire ba romb ay xale ñu naan diw lii lay def ça veut dire que yow li ngay def baax na mais del muslu di def benn affaire xale yi naan ah duma defati nii ndax lii diw lii la doon def

yàlla yóbbu la fa ci kàttanu yàlla. merci ok merci beaucoup jaajëf merci. grand nuyu la. maa lay déggee. Togo. Joël Ndiaye. Joël grand Joël ginnaaw bu ñu interview ak champion Mbaye Diop euh, ban seede nga mën def ci moom. waaw man rek lay mhm. yar. Mhm. yar bi ko yar bi dëkk dëkk bi gis ci moom. Mhm. na ko bu mu yoon. waaw rek kon léegi loo koy conseillé rek. lu mu koy conseillé. Mm-hmm. bu ko dara yéem si àdduna. Mm-hmm. bu ko dara yéem tey mën naa ne force nit. Mm-hmm. force nit. mooy fi nga jóge fi nga jóge mooy say supporter say supporter qualité qualité yi ñu gis bu ko wàcc bu ko wàcc yar bi rek yar bi ngeen jégal ma nag wax dem si monewul lu baax waaw ngeen jégal ma ok kon ngeen jégal ma waaw champion la daal ok merci jërëjëf jërëjëf ok ben nuyu naa la euh, tur bi dollar dollar sar waaw ginnaaw bu ñu defee interview ak mbay jóg ba euh, en tant que sigan bay lo mën a wax ci moom Baye Fall loo moom bu yéeme la daal mhm. waaw sama boy la sama grand la sama lépp la sama doom la mhm. en même temps parce que ami d'enfance la mhm. kër gi ñu nekk fii tey fii lañ yaroo fii la ñuy añee fii la ñuy defee lépp mm-hmm. ba tey jii ñooy fanaan mm-hmm. bu fi nekkul nag du ma fi fanaan mais bu fi nekkee mm-hmm. ñooy fanaan ba tey ñoo ñoo fanaan maak moom tey en tout cas moom moom vraiment fi ma toll ma ko wax kon instant bi nii loo koy conseil man li ma koy conseil mooy mu gën a góorgóorlu mu gën a respecté adversaire gën a respecté boppam xamna tamit dekk bi mm. ñu ko bëgg ñoo ñoo fi nekk mm. grand yi xalé yi paa mère yi ñepp ko respecté mm. parce que bu fi nekkul sax des fois damay romb ba gaay na ma ana sa mbeur bi sa waji du ñew ba lamp bu amé gaay di ma wo sa mbeur bi du ñew ma la leen ñëw waji dina ñew pour jëm leen ak jox calme waaw kon loolu la fa débé waaw en tout cas dal Baye Fall mm-hmm. man bëgg na mu gëna avancer avancé mm-hmm. jox naa ko lepp mm-hmm. conseil bu ma mën boo xam ne daal mën na mën naa tax mu gën a avancé ci làmb bi mm-hmm. maa ngi ko koy jox ba tax na moom saakam yi muy yóbbu ci làmb bi mm-hmm. bagage yi yëpp sama nekk la nekk mm-hmm. te place spéciale la am foofu te loolu lu yéeme la ndax la ko bay simnaaw bay jaabawam sama golle Aliou Faye Aliou Kout Faye Aliou Kout euh, ginnaaw yëpp ñu la interview fam mbay boo pare en tant que Sikane to kam interview ala wo motivé wo taw mbote amo joge mbi a wo zede no tan waaw ke wo ma zede moom wa de koy koor baaxo miña yoona depuis sixième ina mboolu classe ref garanes mm-hmm. i aso ganam a dam dam anam may din doole quoi mm-hmm.

waaw euh, bi. Elimane Elimane Diène. Elimane Diène. waaw bon Elimane ginnaaw bi ñu defee interview ak Mbaye Diop euh, ban seede nga mën a def ci moom. ah Baye Fall bi bon moom man ak moom yàgg nañ. Mhm. ay xarit depuis bu mu fi ñëwee moo ngi doon def CP ñoo bokk classe. Mhm. boobu ba tey daal ñoo ngi ànd. Mhm. mu jàpp ma jàpp ko daal. waaw instant bi mu ngi ci di def di def euh, affaire loo koy conseillé. ah moom daal lu koy conseillé mooy fu mu teg tànkam daal. Mhm. bañ ko faa dindi. Mhm. waaw di respecté mag yi comme ni ko gars yi waxee sànq rek. Mhm. waaw yokku doole yokku xam-xam daal. ok incha allah yàlla dina ko may lu mu si làmb bi. kon ñu lay jëloon. ok fay naa la. tur bi. man Seegu laa tudd Seegu Ndour. Seegu Ndour te mooy ma Ndiaye. Mamady Ndiaye waaw oh, bon ginnaaw bu ñu defee interview ak Mbaye Diop ba pare ban seede nga mën a def ci moom. ah xale xale la xale la. Mm-hmm. xale boo xamante ne jàmbaar la. Mm-hmm. bilaay walaay sama sama doom day la nag. Mm-hmm. mais man moom instant bi man aw ma ma wax. parce que man sama xol dafa fees instant bi parce euh, que moom lu mu def si làmb rek. billaahi wa taala ñëpp xam na ko ñëpp gis nañ ko tamit. champion la champion la vraiment. billaahi kon instant bi loo koy conseil ah lenn laa koy conseil rek. Mm-hmm. mu yokk jom yokk fulla naa loolu noonu mu ngi si mm-hmm. la. Mm-hmm. gëm na boppam tamit. billaahi du ragal. waaw ak fayda. billaahi. ñu ngi lay gërëm. waaw ñu ngi lay